ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ñu ngi santar suñu boroom subhanahu wa ta'ala ci wërsëgal gi nga xam ne defal nañu ko ñu daje ci ab néegam tey di fas yéene jël benn bind ci li nga xam ni moom mooy bind ci wàllu fiq ñu koy sukkandikoo ci téere bi di risaala bu ibnu abi zayd al qayrawaani bokkoon na ci buntu yi ñu nekkoon mooy baabun fi l aqdiya wa shahadat doonte ni mbokk yi gisoon nañ ci am na luñ ca jotoon a jël waaye bunt la boo xam ni dafay jëm ci wàllu atte ca maadaama suñu borom yàlla dafa ñoo nattoo la nga xam ne mooy li ñuy atte nekkatul bind yooyu loolu moo tax na am am na njëriñ ci ñu xam ko waaye nag day am lu ëpp ci ñun bunt la boo xamee ne nii topp ko da leen di xaw a doon luy jafe rawatina da ngay dund ba dee doo daje atte yu mel noonu ndax atte wowuñ ko loolu moo taxoon ñu bëggoon a doy loolu lañ ci jot a jël te dal tey beneen bunt bi muy buntu 39 bi baabun fil faraid mooy baabun fil faraid bu dee ñu yor mooy traduction bu xonq bi yaa ngi ci page 106 waaw ci Samradani bi yaa ngi 627 yaakaar naa am déet waaw waaw 27 bi waaw bu ko defee ak mool boo mën a yor rek nga xool buntu 39 bi ñu ngi noonu 627 ci Samrudani bi tey jii mooy la nga xam ne mooy ñaar fukki fan ak ñaar di 22 ci rabiul awal ci 1442 di tombeeg le 8 jàpp na am tey le 8 na am novembre ci 2020 bokk bunt bi ñu bëgg a dal moom la ñuy tuddee buntu faraid ñu koy tuddee almawaris te mooy buntu la nga xam ne mooy ndono doomu aadama bi gis nañu ni yàlla mën na laa defal nga donn yàlla mën naa def ñu donn la doonte ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokkoon na ci li nga xam ne daani koy wax mooy taallamu alfaraid wa allimuhu nnaas fa innahu nisfu alilm wa huwa awalu ilmin yunzau min al umma dee leen jàng miraas jàngal ko nit ñi nekk na genn wàllu xam-xam te mooy xam-xam bi ñuy jëkk a jël ci xeet bi ba mujjug jamono da ngay gis ay nit ñu am problème miraas duñu xam kenn ku leen ca mën a àtte loolu kon moo tax ñu bëgg ci ñu jël bind yoo xam ne dana la mën a tegtal même boo demul ba am maîtrise ci miraas it da nga ci mën a am gisin boo xam ne da nga xam fooy jaar ba laaj borom xam-xam ya ñu mottali la la nga xam ne moo ca des su ko defee li ñuy jëkk a wax mbokk la nga xam ne mooy ak ndono di miraas googe mooy la doomu aadama bi bàyyi lam bàyyi bokk na ci loo xam ne du suñu aada waaye lañ koy defere mooy càngaay yaag ya ci aju ci alalam lañ ko war a génne bu loolu paasee ñu fayal ko ay borom même bu doon bor ya dafay yóbbu alal ja ba mu jeex gannaaw ba loolu itamit ñu daal di génne dénkaane yi nga xam ne da koo dénkaane woon te dénkaane yooyu du mën a romb ceeru alal ja ñu ngi noonu loolu bu dee am na loo xam ne des na ca lu mel noonu la ñuy doon ñu xam ni kon loolu lay wax su ko defee bu dee da nga jël bind ci téere bi mu ni wala yarisu min arrijali illa ashara du donn ci góor ñi lu dul fukk kese al ibnu wa ibnul ibn wa in safala mooy la nga xam ne mooy doom ak doom ka mu jur ak lu mu suufe suufe ñooñu ñooy ñi jëkk wal abb ak baay wal jaddu lil abb ak baay ba nga xam ni ma nga maam ja nga xam ni moo jur sa baay wa in ala ak lu mu kawe kawe wal ax ak sa frère wa ibnul ax ak sa doomi frère wa in bauda ak lu mu sori sori wal am ki bokk ak sa baay la nga xam ne mooy baay wala ndey ak baay wa ibnul am wala ay doomam wa in bauda ak lu mu sori sori wa zawju ak jëkkër wa mawla naama ak féete woo jaam bañu goreel ñooñu ñooy ñi nga xam ni ñooy donn ca góor ña wala yarisu min annisaai gayru saba du donn ci jigéen ñi lu dul juróom-ñaar ñi albint mooy doom bu jigéen wa bintul ibn ak doom bu jigéen boo xam ne doom bu góor moo ko jur wal umm ak yaay wal jadda ak ka nga xam ni mooy maam wal uxti ak sa sœur wa zawja ak sa frère wa mawlaati naama ak non wa zawja sa soxna wa mawlaati naama ak ña nga xam ni ñoo goreel la nga xam ne nii moom mooy jaam ba mi ngi noonu mbokk kon fii day wax rek ni ñii islaam jox ne ñoo war a donn mu lim ci fukk yooyu mu la wax ca góor ña doonte ne loolu li muy firi mooy bu fi kii nekkul kii moo fi sës waaye bu dee nit dafa faatu bàyyi ñii mu tudd ñépp su booba ñett rek ñooy ña nga xam ne ñooy ndono benn mooy ay wayjur ñaar mooy ay doom ñett mooy jëkkër walla jabar am na bu dee doom am na frère yaag doomu baay tax yaag ñoom ñëpp dañ leen di dégager bu dee bàyyi mi ngi dund it na ko noonu ñoom ñëpp dañ leen di dégager ña nga xam ne nag ñooy ña nga xam ne noona gi nu mën a demee moom fokk ñu bokk ca mooy way jur yi yaay ji ak baay bi doom yi góor ak jigéen soxna wala borom kër ñii ñoom fokk kenn mënul dox seen diggante ak miraas amma ñeneen ñu dul ñii mën nañoo doon ci ay kaa ñàkk doon ci ay kaa doonte ne itamit ñu xam ni yéeféer du doon julit da nga am bàyyi julit doomu julit soxna julit subhanallah ki yàlla nattoon mu am bàyyu yéeféer doomu yéeféer soxna yéeféer même bu doon chrétien booy suyeeg moom sax du doon ki rey nit ki tamit du ko doon na doon baayam la rey wala doomam la rey du doon naka noonu itamit bokk na ci la nga xamee ne nii moom mooy nit ki nekk doom boo xam ne nii baayam da koo rejeté rëbbanteeg yaayam ne juru ko wala doom boo xam ne doomu njaaloo la wala nga bokk ci koo xam ne am na ku la féete kaw mi ngi mel ne rek sa frère dee na ca sa baay mi ngi dund su boobaa yow doo doon sa frère dee na ca bàyyi na doom bu góor su boobaa yow doo doon ngi noonu man ngaa doon nag bu bàyyi doom bu jigéen ci ay cas yu ñu war a wax ci kanam kon mbokk ñii ñooy ña nga xam ne islam wax ne ne dañuy doon mu wax ci góor ñi wax ci jigéen ñi nit ki it bala nga koo doon fokk day leer ne yaa ko mujj a dee day leer ne yaa ko mujj a dee benn accident mi ngi nii wala iyaas billah am ñu ko fekke ñu ne ah Moodu kat moo jëkk a dee biñ ci tegee trois minutes la Samba dee kon dañ naan Samba day doon Moodu suñu ñëwee xamuñu ñoom ñaar kenn ku ci jëkk a dee sa morom ñoom ñaar kenn du ci donn sa morom kon fokk mu sax ni waa ji donn kat dundaat ne même bu doon une minute gannaaw ka nga xam ne nii ah daf koy doon loolu kon mooy règle ci règle bu njëkk bi soo jëlee sa téere ñu jël beneen bind mu ne wa miraasu zawji la nga xam ne mooy ndono jëkkër min zawjati ci soxnaam in lam tatruk walada su dee soxna sa bàyyiwul doom wala walada ibnin ca bàyyiwul it doom boo xam ne doom bu góor moo ko jur su boobaa dañ naan nisfu genn wàllu alal jëlee jël fa in tarakat waladan su dee bàyyi na doom nag aw walada ibnin wala mu bàyyi doom boo xam ne nii dooma ma ko jur minhu bu jóge ci moom aw min xayrihi ay minhu mu jóge ci jëkkër ji direct aw min xayrihi wala mu amoon ko beneen góor fa lahu rubu su boobaa day dellu jël kaaru alal ja ñi ngi noonu wa tarisu hiya minhu rubu a soxna si it bu dee borom këram moo faatu moom day donn ci moom kaaru alal ja in lam yakun lahu walad su dee ne jëkkër ji bàyyiwul doom wala walada ibn wala mu bàyyi doom boo xam ne doomam a ko jur fa in kaana lahu walad su dee ne am na doom aw waladu ibn wala mu am doomu boo xam ne moo ko jur minha mu jóge ci soxna sa aw min gayriha wala mu jóge ci beneen soxna fa laha sumunu su booba wii ci mu alal jëlay jël mi ngi commencé ci ndono way dencante doomu aadama bi benn soxnaa ngi nii borom këram wala boog soxnaa ngi nii daal di faatu bi muy faatu am na borom kër mën na am moog borom kër bi musuñoo gisee ñu ngi noonu moo dooga Amérique may nañ ko faatu ñoom ñaar musuñoo gisee faatu faatu na moodu day bokk ci ñi koy doon su dee faatu musu am doom ah su boobaa wala boog amul benn doom boo xam ne mi ngi dund su boobaa dañ naan genn wàllu alalam moodu moo ko moom ak lum bari bari ngi noonu genn wàllu alalam moodoo ko moom ak lum bari bari waaye bu dee faatu bi muy faatu bàyyi na doom direct wala mu bàyyi sët boo xam ne ci moom la cosaanoo kon dañ naan alal ji dañ koy xaaj ñeenti xaaj jëkkër ji mooy jël benn bi loolu la ñuy tuddee rubu o muy la kaar su ko defee jëkkër ñaari cër la am ci soxnaam benn genn wala alal yépp su dee bàyyiwul doom bu jóge ci moom wala sët bu jóge ci moom wala kaaru alal ji su dee bàyyi na doom te mooy la gën a néew lu jëkkër di doon ci soxnaam amma bu dee ne soxna si jëkkëram moo faatu su boobaa moom jëkkër ji bàyyi na doom dañ naan ko kot yow alal ji dañ koy xaaj juróom ñetti xaaj benn xaaj ba yaa ko moom li nga noonu bàyyi woon ne huit mille kon benn mille ba la soxna sa moom bàyyiwul doom jëkkër ji faatu na bàyyiwul doom ji tu su boobaa kon dañu naan alal ji dañ koy xaaj ñeenti xaaj benn xaaj bii la soxna si di moom loolu di règle booy jàpp bépp soxna bu borom këram faatu ca borom kër ga bàyyiwul doom kaaru alal ja soxna saaka moom bu dee kenn la su dee ñaar lañu wala ñett wala ñeent ñu séddali leen ko amma bu dee jëkkër ja bàyyi na doom na doon soxna si moo ko jur wala amoon na ko ak keneen wala doom ba sax faatu na waaye bàyyi na fa doom su boobaa dañuy naan wii mu alal ja moom lay jël loolu it ma la wax ci borom kër ga mooy li valable ci soxna si faatoo ngi nii may nañ ko Moodu Moodu ma nga France yàlla dogal ah Moodu faatu na bi fi bàyyi woon un milliard it ca moog faatu mosuñoo gisee dañ naan kaaru alal ji faatu lañ koy jox maadaama Moodu amul doom kaaru alal ji faatu lañ koy jox même bu doon da koo fase te mas naa ànd ak moom ci lal su boobaa bu idd bi jeexagul ku ci gaañu sa morom da lay doon bu dee nag mosuñuy gise moom fa mu ko fase la idd ba jeex waaye bu dee mas nañoo ànd ci lal fu mu ko fase tant que idd bi jeexul ku faatu sa morom da lay donnu mi ngi noonu bokk na ci loo xam ne it borom xam-xam yi sax wax nañ ko ci mooy même bu doon da koo fase ñetteelu fase ci feebar ba nga xam ne ca la faatoo su boobaa dañ naan soxna si day don ndax dañuy ragal waa ji da koo bëgg a dàq ci ndono ci loolu mooy bu dee feebar ci biir feebar boobee ca la faatoo waaye daal li wér moom mooy bu dee ne fase bi ñu ko fase fase bu ñu mën a delloo la avant idda bi di jeex ku góor ki gaañu soxna si day day day day donn soxna si moo gaañu ku góor ki day donn looli mooy atte bi nga xam ni moo am ci diggante way dencante yi loolu mbokk mi ngi noonu xam naa su doon mën nañu bàyyi mbokk yi ndax am nañu laaj bu jëm ci miiraasu ba way dencante yi jëkkër ak jabar su dee amul question ci loolu ñu continuer waaye ku am question bu ko xaw a lënt ci miiraasu diggante borom kër ak soxnaam bu dee dañuy donnante am na ko ci faatu ñu koy donn waaw waaw bismillah waaleykum salaam waala kulli xaal loolu moom beneen atte la mooy miraas ak soxna si ñu jox ko frère am loolu moom jotewul dara bokk na daal loo xam ni islam da koo tere yaa ya ayuha alladina amanu laa yaxilu lakum an tarisu nisaa karha daganul jigéen ñi ñu leen di donn ca neexu leen loole bu dee dimb arab yi dañ daan sa baay dee dee bàyyi ay soxna sa yaay rek ngay bàyyi yeneen soxna yépp yaay xool ku la neex nga takku ko wala ku la neex nga may ko waaye lu mel noonu itamit suñu aaday kaw gi dañ koy def moo di ne ni kii faatu na soxna suñu ne diwa ko war a jël jeex na mu neex koog mu naqari ko diwa ko war a jël léeg-léeg ko góor gi sax du bëgg parce que naa dégg benn waay boo xam ne nee na ba mu commencé tux cigarette nee na grand frère am dafa faatu daanaka jabar grand frère bi sax presque moo ko mag léegi ñu ñëw na ko kat kii fokk moom ngay jël mu ne déet mag ñi ne ko loolu mënut a nekk fokk moom ngay jël nee na ma jaaxal xaw mën may def ma dem jël paquetum cigarette di tux keroog laa commencé tux donte ne ne loolu tubaab yee ñu ko doon naxee ne tux cigarette day dàq problème déedéet day indi problème kay ala kulli xaal mbokk julit loolu ay aada la yaakaar naa ñi yàgg fekkee tafsir yi mas naa fekke benn dëcc ñu jóge ci armeel yi jóge ci armeel yi de ñu ñëw benn góor taxaw ne waaw yéen doomu bàyyi yéen ay priorité ci soxna yi ku nekk na xool kan la ci féetewoo doomu bàyyi bu mag bi naa waaw ñun daal suñuy soxna rek nañ leen bàyyi généré leen loolu mënu ko xëy loolu mënut a nekk su dee ne waxu leen ñun doomu day ñooy wax daa ji ne Bilal Thiam fa Fat Seck eh déwul jërëm Seck ñetti soxna yi ñu séddale leen ñi ngi jóge armeel ya su ko defee loolu lu muy jur mooy à partir de ce jour ko góor ki toujours mooy jël alalam di jox soxna si di jox soxna si bu tënj ba jeexee automatiquement ñu takk ko léegi-léeg nag lu bëri da daan yàqu mbokk ndax léegi-léeg ñu dem ba ca cëppaandaw ga soxna si ne bëggul mbokk ko yàqu ala kulli xaal daganul ci jigéen ñu koy forcé di ko jox kenn waaw su dee ne nag dëppoo nañ ñoom seen biir dara gunte rafet mbokk jëkkër ji jël soxna si dina ko dara gun ko rafet waaye daal na doon ci dëppoo bañ a doon ci loo xam ne nii dañ koy imposer wallahu subhanahu wa taala alam naam ah bismillah mu ne waaw waaw waaw waaw trois trois kaar yi des waaw moom kaar bi lay doon li ci des ñeneen ñoo koy doon li ci des incha allah daañ daañ ko jàng ci kanam mooy ñeneen ñooy doon alal ji des ku nekk dañuy wax sa cër rek mais la des moom daañ xam ñeneen ñu koy doon incha allah akuli xaal kon ñu continuer ñu continuer suñu bind yi mu ne kon wa mirasul ummi min ibniha di noonu la day waaw noonu la wa mirasul ummi la nga xam ne mooy mirasu yaay ca doomam sulusu ceeru alal jalay jël illam yatruk walada su dee doomam ja bàyyiwul benn doom aw walada ibnin wala mu bàyyi doom boo xam ne doomam a ko jur aw isnatayni min al ixwa wala mu bàyyi ñaar ci ay frère maakaanu na doon noonu la fa saaidan wala lu ëpp loolu illa fi faridatayni xanaa lu dul ci ñaari faratay miraas fi zawjatin wa abawayni ci kii bàyyi soxna ak ñaari wayjur fali zawja rubu soxna sa dañ koy jox cee kaaru alal ja wali ummi sulus ma baqiya yaay ja ñu jox ko ceeru la des wa ma baqiya li abin la nga xam ne mooy la des ñu jox ko baay ba wa fi zawjin wa abawayni bu dee ne ci jëkkër ak ñaari wayjur fali zawji nisfu jëkkër ji gennalu alal ja lay jël wali ummi sulusu ma baqiya su ko defee yaay day jël la nga xam ne mooy cee mooy ceeru la nga xam ne mooy la des wa ma baqiya li abi la des ñu jox ko bay ba wa laha fi gayri zalika sulus bu dul lool nag dañ koy jox ceeru alal illa ma naqasaha al awlu lu dul loo xam ne da koo wàññi la nga xam ne mooy ak jubbanti illa an yakuna lil mayiti waladan xanaa lu dul ne aji deeje am bàyyi doom aw walada ibnin wala mu bàyyi doom bu jóge ci doomam aw isnaani min al ixwa wala mu bàyyi ñaar ci ay frère ma kaana ak isnaani min al ixwa mu bàyyi ñaar ci ay frère maakaana na doon ñooñee ay góor lañu ak ay jigéen lañu ak fu ñu mën a doon fa laha sudus xiina idin su boobaa sixième alal jëlay jël mi ngi noonu mbokk kon day wax ci miiraasu yaay yaay bu doomam faatoo dañuy xool ndax doom ji am na doom walla am na sët buy dund su dee ne doom ji am na doom wala am na sët su boobaa da ngay gis am na atte bi ñëw ci kanam waaye bu dul looloo ceeru alal ji yaay moo ko moom lu dul nag ne mu bàyyi ñaari frère ki nga xam ne daa faat bàyyi ñaari frère su boobaa yaay un sixième rek lay am ca miraasu doomam su bàyyee doom yaay un sixième la cee am un sixième mooy juróom benneel waa ji faatu na bàyyi juróom benni junni waaye bi muy faatu bàyyi na doom kon yaay sa miraasu doom benn junni nga ca am bàyyi na ñaari frère wala bàyyi na ñaari sœur su boobaa dañ naan yaay sa miraasu doom kat ba tey un sixième nga ca am amma bu bàyyiwul ay frère bàyyiwul doom su boobaa ceeru alal ji lay jël loolu mooy la nga xam ne nii moom la ñuy atte ca wàllu googee mu des beneen benn cas boo xam ne dañu du jël ceeru alal ji doomam bàyyi waaye day jël ceeru alal gannaaw bañ joxe jëkkër wala jabar benn waaye ngi nii takk soxna jotul am doom léegi mu daal di faatu bàyyi ñaari way juram ak soxnaam kon dañ naan alal ji nañ ko xaaj ñeenti xaaj kaar bi ñu jox ko soxna si trois quarts yi nga xam ne moom la des ñu ne yaay jëlal benn papa jël ñaar kon day tontu question bi mbokk bi doon tontu ci kaa bu mel noonu naka noonu it bu doon tene ne soxna si moo faatu su boobaa dañu naan la nga xamee ne nii moom mooy alal ji dañ koy xaaj ba tey juróom benn partie yow jëkkër bàyyiwul doom yaa moom génnoo la alal ji muy trois ñu jox ko jëkkër ci trois mooy des ñu ne yaay jëlal un bàyyi jël deux su ko defee kon yaay donnatul ceeru alal ji lépp waaye dafa donn ceeru la des biñ joxee jëkkër wala jabar wàllam loolu lay wax ci wàllu googee amma li muy tuddee al awlu yooyu ci gën a compliqué ci wàllu miraas la bokk te mooy réajuster jubbanti masalan tey jii benn waaye ngi ni dafa faatu daal di bàyyi la nga xamee ne nii tey jii mooy lu mel ni borom këram bàyyi la nga xam ne nii mooy ñaari sëram bàyyi la nga xam ne mooy yaayam heure boo xamee ne ñaari sër ñooy donn ca donn wuñu ak la nga xamee ni nii mooy doom wala ay frère ñooñu dañ naan dañuy jël la nga xam ne mooy deux tiers alal ci deux tiers alal joojee buñ ko xoolee day nekk quatre day nekk quatre kon alal ji bu doon juróom benn junni junni ñu naa ñoom jël nañ quatre quatre mille ah yaay comme am na ay sœur yow looy jël un sixième kon yaay ñu ne jëlal sa junni du juróomi junnee ngooga léegi nag jëkkër ji nga xam ne moom dafa waroon jël génnoo la alal ji ni ñu def ñu ne alal ji six la woon jëkkër yow trois nga am ñu ne kon nañ jël trois jëkkër ji kaatu yi sœur yi boole ko muy sept un bu yaay ji boole ko muy huit su boobaa alal ji dañ koy def huit par au lieu ñu def ko six par loolee kon ci wàllu googee la waaye da nga xam suñ ko jàngee nànk-nànk rek ana ku nekk ci lan nga war a doon kon jàppal yi gën a am solo moom mooy ñetti kaay yi moo ci gën a am solo ndax leneen li dajeeg moom dana xaw a jafe léeg-léeg waaye ñetti kaayaay mooy benn doomam bàyyiwul doom bàyyiwul sët bàyyiwul ay frère su boobaa ñu ne yaay yaa moom ceeru alal ci doomam bàyyi na ay frère wala bàyyi na bàyyi na doom ñu laa kon yaay sixième sixième alal ji ngay ngay am doomam bàyyi na jëkkër wala bàyyi na jabar ñu laa kon yaay bàyyil ñu jox jëkkër wàllam wala jox jabar wàllam lii ci des nga doog a jël ceer bi lii mooy attey miraasu yaay ca la nga xam ne nii moom mooy doomam mi ngi noonu su dee nii dañuy jël beneen bind mu ne wa miiraasul ab su dee nag ndono ga ñuy jox baay min waladihi ca doomam idan farada su dee baay rek fa nekk warisal maala kulla alal jépp dañ koy jël jox ko ko wa yufradu lahu ma al waladi zakar aw waladi al ibn sudus dees na ko jox nag bu dee dafa am doom bu góor bu doomam bàyyi wala sët bu góor bu doomam bàyyi kon bàyyi dañ naan ko alalu sa doom ji un sixième nga ci am léegi bàyyi na juróom benn junni kon bàyyi benn junni nga ca am fa in lam yakun lahu walad su dee doomam bàyyiwul doom wala walad ibn bàyyiwulit doom bu góor bu jóge ci doomam furida lil ab sudus na am bàyyi dañ ko faratal jox ko sixième ba waaye wa utiya man sharikahu min ahli istiham daa di jox ña nga xam ne ñoo bokk ak moom te ñu amoon cër sihamuhum seeni cër summa kaana lahu ma baqiya gannaaw ba ñu daal di koy jox la nga xam ni moom moo di seet ca alal ja ba tey kon mbokk fii dalay wax lan mooy attey baay ci doomam su dee nit ki dafa faatu bàyyi baayam waaye bi muy faatu jotul sëy te yaayam faatu na amul jabar amul doom yaayam faatu na bàyyi muy dund alal jépp bàyyi da koy jël du ko bokk ak kenn même bu amoon téeméeri frère sax bàyyi moom buy dund frère dootu doon alal jépp bàyyi moo koy jël mi ngi noonu léegi mu des beneen cas mooy bi muy dee nag bàyyi na ay doom bàyyi na doom bu góor wala bàyyi na sët bu góor su bàyyee doom bu góor wala sët bu góor rek léegi bàyyi cër lay am cëru bàyyi ci miraasu doomam mooy un sixième loo xam ne moom munta ñàkk quel que soit lu ba lu lu doom am ci njaboot bàyyi moom un sixième am du ñàkk dañ ko jox un sixième am mu des beneen cas masalan waa doom bi bi muy gaañu mi ngi bàyyi la nga xamee ne ni benn doom bu jigéen wala ay doom yu jigéen waaye bàyyiwul doom bu góor kon bàyyi moom dañ ko jëkk a jox un sixième am ba pare masalan tey bàyyi woon na juróom benn junni ñu ne ko bàyyi benn junni bi moom sa farata la yaa ko moom doom yu jigéen ñi ñu ne ñaata lañu ñu ne ah ñoom kat benn la ñu ne benn la kon moom moom génnaa la alal ji muy ñetti junni ah léegi kon dana desaat ñaari junni ah ñu ne kon bàyyi ba tey ñaari junni yow dañ la koy jël dolli la ko bu doon dafa bàyyi ñaari doom yu jigéen ñoom ñooy jël ñeenti junni yi bàyyi moom jëloon na junneem ba pare ñee jël ñeenti junni yi mu des benn junni ñu ne ko bàyyi kon jëlaatal sub junni te mooy bàyyi moom fokk day am farataam muy un sixième su dee doom am na ci un sixième bi lay yem su dee doom bu góor amul xanaa ay jigéen dafa nekk ñooñu ñu jox leen seen cër te mooy jox jigéen ji doom yi jigéen yi seen cër jox soxna si cër wala jox jëkkër cër bu dee am na lenn lu des bàyyi da koy jëlaat gis ngeen moom moom lay wax noonu wa ootiya mi ngi noonu la nga xam ne mooy des loolu kon mooy miraasu bàyyi gannaaw ba ñu waxee miraasu yaay ci doomam xaw ma ndax am nañu tamit beneen laaj boo xam ne dafay yem ci diggante miraasu baay ak miraasu yaay ndax bu dee am na laaj bu aju ci loolu naam bismillah naam waaw bu dee reyu ko ngir yàkkamte doon ala kulli xaal bokk na ci li nga xam ne nii fuqaha yi dañ koy wax mooy ki rey nit du ko donnu allahuma am na ci nag ñenn ñoo xam ne dañ ne bu dee rey ga ñépp xam nañ ne du teyeef su boobaa loolee mën nañ ko boole ci ñuy doon mais bu dee am na lenn lu ci lënt ci moo ko tey teyu ko su boobaa moom duñ ko boole ci ñi nga xam ne nii dañuy doon loolu daal moo aju ci loolu na doon loolu bàyyi la ak doom la kum mën a doon amaa daal buñ demee ba xam ne kii moom moo rey te rey googee amuñu preuve yu leer naññ ne lii ñàkk tey complètement la su boobaa moom da bokk ci ñuy doon même bu dee reyuñu ko da bokk ci ñuy doon wallahu subhanahu wa taala alam naam da ngay dindi masque bi ñu bu bari waaw waaw waaw loolu moom dina ñëw ci kanam fi mu ne nit ñi ngi toll ci yaay lan lay jël waaw yaay lan lay jël amma boo yaay gaañoo ni ñuy donne bàyyi lañ koy donne dañuy donne baay lañuy donne yaay mooy góor ñaar jigéen benn léegi-léegi nag moo am ci ay discussion yu bëri nit ñiy jaawale miiraasu doomi ndey ak miiraasu ñu seen ndey dee ay doomi ndey mooy ñan waa ji faatu na bàyyiwul ay way jur bàyyiwul ay doom am na nag ñum bokkal ndey ñooñee dañ naan góor ak jigéen ñoo yem ci miiras bi góor ak jigéen ñoo yem ci miiras bi ku nekk day am un sixième su dee ne dañoo bari ñu séddale leen ceeru alal ji waaye ñooñu seen doomi ndey moo gaañu bokkul ak nag ñu seen ndey gaañu ñu seen ndey gaañu ni ñuy miraase seen bàyyi lañ koy miraase góor day jël ñaar jigéen jël benn mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam waaw naam bismillah waaw doomi jullit bay sëye chrétienne ay jullit lañ leen di considéré fi yeeg kenn ci ñoom majeurul daal di murtat dañuy jàpp ne ay jullit lañu comme seen baay su ko defee ñooñee ku ca faatu seen yaay chrétienne du ko donn naka ñoom it seen yaay chrétienne jooju ba faatoo ñoom duñu nekk ñoo xam ne duñ ko donn mi ngi noonu loolu mooy aju ci wàllu googee mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam allahuma ludul ni bam kay ba muy nekk jullit daa fekk way jur wa faatu woon na mi ngi noonu gisoon naa ci benn cas boo xam ne soriwul fii trop benn mbokk boo xam ni baay ba dafa dee bi baayam dee bàyyi woon na ay kër yu am solo Dakar gannaaw ba mu tuub dugg ci lislaam mais ba bàyyam di faatu fekk moom chrétien la comme moom borom xam-xam yi dañ ne ko am nga droit donn ci la sa alalu bàyyi ndax ba bàyyam dee yéeféer la comme moom kon alal ji moom moo ko moomoon da koo dugaale ci lislaam mais bu doon tene ne bi bàyyi bi dee tuubal na dugg ci lislaam amul droit jël dërëm ci alamu alalu bàyyam joojee mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaw bàyyi moom sixième moom moo ko moom mutlaqan amma fu doom bu góor amee rek bàyyi ci sixième kese la yem fu doom bu góor amee wala sët bu góor bu doom bu góor jur su boobaa bàyyi ci sixième am la yem kañ la ñuy dolli bàyyi mooy ña ca des ay jigéen yi neen lañu su boobaa la des la ñuy jël dolli ko bàyyi mais bu doom bu góor amee wala sët bu góor amee bàyyi moom ci sixième ba lay yem mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam waaw ala kulli xaal kon ñu ñu dolli ci benn bind rek ba gannaaw ba ñu nodd insha allah mu ne kon wa miiraasul waladi zakari lay miiraasu doom bu góor jamiul maal mooy mboole mi alal ja yépp lay jël in kaana waxdahu su dee moom dong ma fa nekk aw yaxuzu ma baqiya ba'da sihaam wala mu jël la des gannaaw bañ joxee cër ya man sihaami man maahu cëri ña ànd ak moom min zawja ca soxna ka nga xam ne nii bàyyam bàyyi na ko wa abaway ni ak wayjur ya bàyyam bàyyi aw jaddin wala maam bu góor ba bàyyam bàyyi aw jaddatin wala maam bu góor ba bàyyam bàyyi wa ibnu ibnin wala doomu góor bu jóge ci doom mi ngi noonu bi manzalatil ibn bu tolloog moom ca wàccuwaayam ida lam yakun ibnu su dee nekkul doom ja fa in kaana ibnu ibna bu dee dafa nekk doom boo xam ne nii doom bu jigéen la fa li zakari mislu hazil unsayayni su boobaa dañu naan góor day jël ñaar jigéen jël la nga xam ne nii moom mooy benn wa kazalika fi kasratil banin loolu la ñuy wax ca doom ya lu ñu bëri bëri wal banaat ak lu ñu bëri bëri wa qillatihim ak seen néewaay ñoom ñépp yarisuuna dañuy donn mi ngi noonu kazalika jami al maal lépp loo xam ne alal la aw ma faddala minhu baada man sharikahum wala la nga xam ne dafa des gannaaw ña an ña bokk ak ñoom min ahli siham te ña nga xamee ne nii ñooy borom cër ya mi ngi noonu mbokk kon fii day wax mu ni miiraasu doom mooy day jël alal ji yépp su dee ne nekku fa kenn waa ji daa faatu bi muy faatu ay wayu juróom faatu nañu léegi benn doom bu góor la am doom bu góor boobi bu doon waa ji masalan amul soxna alal jépp la doom bu góor bay jël su amee soxna it dañuy jël cëru soxna sa jox ko soxna sa la des yépp mu jël ko yaayam moo faatu bàyyiwul ay wayjur mu nekk benn doom bu góor alal jëpp lay jël bàyyi woon jëkkër ñu jox jëkkër cëram la ca des lépp mu daal di koy jël léegi bu dee ne nag dafa ànd ak ñoo xam ne dañoo war a donn su boobaa moom desitu alal ji lay jël bépp doom bu góor wala ay doom yu góor suñu nekkee war a donn seen baay ñoom dañuy jëkk a jox ñu am cër seeni cër masalan waajur yaa nga fa dañuy jox waajur yi seeni cër soxnaa nga fa dañuy jox soxna si cëram ñoom dong ñooy ànd donn ak ñoom allahuma ludul bàyyi nekku fa wala waaye maam bu góor bi jur bàyyi ma nga fa su boobaa day jël cër bi bàyyi waroon a jër maam bu jigéen bi jur yaay mi ngi dund te yaay nekku fa day jël cër bi yaay waroon a jël su ko defee la des ci alal ji lépp doom yu góor yooyu ñoom ñoo koy jël ñoom kese su dee am nañu sër yu leen rax su boobaa dañ koy séddoog ñoom ñu jox góor ñaar jox la nga xamee ni nii moom mooy jigéen benn loolu moom mooy aju ca la nga xamee ni nii mooy miiras bi doom di am ca la nga xamee ni nii moom mooy way juram loolu mi ngi noonu pour nga gën a mën a déggaat képp koo xam ne waajuram faatu na mu nekk benn doom bu góor wala ay doom yu góor ca amuñu waajur ba bàyyiwul ay waajur bàyyiwul la nga xam ne mooy soxna alal ji yépp ñu góor ñu ñoo ko moom am nañ ay sœur dañ koy séddoo seen diggante góor ñaar jigéen benn am na ñenn ñu am cir kon ca ñooñee la ñuy jëkke way jur ya ñu jox leen soxna sa ñu jox leen la des ci alal ja ñoom ñu doog koo jël séddoo ko góor ñaar jigéen benn loolu kon moom mooy atte ca wàllu miraas bu doom war a am mi ngi noonu incha allah ñu bàyyi bilal noddu lu ci des ñu doog koo jël ci laaj yi di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla wërsëgal ñu ñu dégg am njàngilinam la nga xam ne noonu la bëgg ñu tërale ko ci miraas mu xamal ñu ko ca wërsëgal ñu jëfe ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain alhamdulilah xam na ci biir dars yi lañ doon bëgg ñu yem ci la nga xam ne moom la ñuy jàngale su dars bi passé it la nekk di priorité mooy question bu jëm ci dars bi konte ne mën naa am yeneen question yoo xam ne nii ajuwul ci dars bi wallahu subhanahu wa taala alam naam bu dee ne waaw bismillah naam waaleykum salaam wala kulli xaal loolu lépp day wone ni yonent yàlla bi yàlla ko yónni ndax la nga xam ne mooy règle fraction yooyu ku ne xamal ne ku jàngul même suñu jamono tey mënoo ko comprendre waxuma nag au septième siècle parce que tey boo xoolee loolu ñu wax ci wàllu miraas boobee da ngay xool rek masalan hadis bi yonente bi alei salatu wasalaam wax ne ki gënoon a rafet ni muy naafila mooy daawud kaana yanaamu nisfa leyl wa yaqumu sulusahu wa yanaamu sudusa daawuda da daan nelaw la moitié guddi gi taxaw deux taxaw un tiers bi daa di nelawaat un sixième bi xam nga loolu fraction la boo xam ne ku xamul fraction mënoo ko comprendre jamais mais dañuy gis ne guddi gi boo ko divisé par six la moitié mooy trois un sixième bi da nga gis mooy deux deux plus trois égale cinq sudus bi mooy un sixième loolee kon ba ko yonent bi alei salaam di wax au septième siècle koo xam ne nii ay ay xar la doon sàmm mooy yàlla moo ko moo ko moo ko jàngal lool loolee kon mooy répercussion boobu am ci wàllu miraas yi ak yu bari day wane ne li suñu borom wax ne wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lii muy wax yépp yàlla moo ko ko jàngal wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bàyyi gay ah waaw waaw doom moom lu mu bëri bëri bëri dañooy am seen wàll ci miraas te mooy ñoom aw desit la ñuy jël bàyyi cër lay jël mooy bàyyi ak yaay ñoom ku ne day am sixième mooy sudus loolu mooy seen cër doom nag moom day jël desitu alal ji donc bu ñuy miraas dañuy jëkk a génne cëru yaay cëru baay cëru soxna la des ci alal ji doomu koy jël bu doon moom kenn la ñu jox ko ko bu doon cent la ñu ñu séddale leen ko waaye ñoom duñu duñu manqué ci miraas fokk doom doon fokk waajur doon fokk soxna doon ñii ñoom duñu manqué ci miraas wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam ala kulli xaal nit kay boo dee ci miraasuñ ko du tàlli ci bàmmeel loole ay wax la yu nit ñi wax lenn daal mën na caa nekk dëgg mooy bu dee miraas ba dañ caa war a fay ay borom dañ caa war a fay ay borom ki nga xam ne dafa dee bàyyi ay bor bor yooyee tànk fayuñu ko loole mën na koo jural la nga xam ne ay jafe-jafe la ci barzaq loole mi ngi noonu moo tax yu leen ci bari sam daan ñaax nit ñi ñuy gaaw a fay boru nit ñi comme na ma amee ci abi qataada ba gàddu woon boru kam ka yonent bi bañu na julli ba mu dajeeg moom na ko waaw fay nga ko mu ne ko déedéet waaye naa ko fay fan yi mu daje waat ak moom fay nga ko mu ne ko fay nga ko mu ne ko ah léegi de kon waaje dana dal kon daal way jur moom bu dee dafa bàyyi wala way jur ku mën doon dee miraas bañ koy miraas gannaawam yoonam nekkatu ci depuis mu dee alal ja moom pare na ca ñaka moom mooy ñeneen bu dee ne nag daa bàyyi woon bor su boobaa moom bor boobu war nañu ko gaaw fayal ko ko loolee dana ko dalal fa mu nekk ca barzaq amma bu dee ne dañ ne kii dafa faatu famille bi ne duñu miraas rawatina mag ñi duñu miraas mbokk nañu xam ne ki xis ba faatu alal ja ay doomam ñoo ko moom doom yooyu bu dee ñoom ñoo dëppoo ci seen teeyu bakkar ci seen teeyu bakkar ñoo dëppoo ci ne alal ji nañ ko garde buñ ko miraas islam dinañ ci wax dara amma bu dee ne am na kuñ ca yëg ne kii kat mi ngi laaj alalam wala laaju ko waaye xam nañ ne kersa dong nga tax waaye moom soxla na wàllam ndax loolu lu ci bëri day am day gis ñoo xam ne nii bëgguñoo jëkk a wax ci miraasu baay bi ñu ŋawti ŋawte leen waaye bu dee wóor na ne ne kii kat soxla na wàllam ci miraasu baayam ña nga xam ne ñooy kilifa ñooy yor alalam dañuy xam ne aq la boo xam ne dañ ko ko war a jox loolu la yeneen ci bari som dañ wax naan matalul xani zulm ki nga xam ne daa yor aqu jaamoor man ko koo jox te jox ko ko ma ngay tooñ loolu daal la ñuy war a wax ca wàllu googee wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaw waaleykum salaam wa rahmatullah
ki nga xamante ne doom waroon doon fekk na moom ñëpp maanaam ba paas yaayam moo fi nekk ndax lu mu waroon am moom la ñuy jox yaayam wala fay ñaareel mooy ñi nga xamante ne maanaam suñu grand bu njëkk bi seen frère day paa bi bàyyi jabar day ñëw ñu ne la ñuy doon doom boobu même su nekk na am ni léegi da ko war a jox kan wala wala la mu mën a fay lay doon fay
ki nga xam ne dafa faatu war a doon ndax doone bi lañ koy jox yaayam déedéet moom bu dee faatu mooy bu waree doon mooy kam yi doon ko jëkk a faatu masalan baayam faatu woon na wala frère am faatu woon na mu war a doon léegi bi mu war a doon mu faatu moom ci boppam dañ koy doon donc du yaayam moo koy doon kese dañuy xool kan mooy ña nga xam ne ñoo koy jegeñaale yaay moom comme ni nga ni nga ko jàng sànq kaam li mu mën a doon rek doomam amul doom moom moom ceeru alal ji su bàyyee ay frère su boobaa moom da ngay gis day jël sixième alal ci ala kulli xaal daan nit ki moom mag ak ndaw a ci bokk yem képp ku dee bàyyee alal alal ji dañ koy donn loolu mi ngi noonu amma kiñ ne dañ koy donnele frère am fokk mu am can fokk mu am can ab sëy kenn du ko takk noonu rek ci zéro fokk waa ji day joxe can ñu da ko ko may mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam ala kulli xaal ah waaw waaw waaw ki doon jàng ci takkusaan suratu sajda mu sujud am ku ne ko nag heure bi def ci sujud waaw loolu moom ixtilaaf la ci borom xam-xam yi bu dee ñi nga xam ne dañoo jàng téere mazhab malik su dee ci mazhab malik ñoom dañ ne sujudu tilaawa naafila la te kenn du naafila gannaaw takkusaan kon booy jàng ba yegg ci do sujud loolu mi ngi noonu am na nag ñoo xam ne dañuy jàpp ne sujudu sabab la ca sabab tere wuñ ko ci waxtu yi ñu tere kon bu la neexee nga sujud almuhim bu dee ne ñoom ñaar ñëpp xam nañ daal coow du am lii problème rek mooy fekk ne xamuñu te lam ko tere moom dafa jàpp mi ngi koy laay biir ndax loolu la jàng su ko defee yow it bu dee xëy na jàng nga leneen nga xamal ko ne ko li nga wax dëgg la waaye nag yow it yaa ngi ko teg ci nangam ak nangam ak nangam mbokk mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam yaakaar waaw waaw xanaa ñu mujj ci mbokk bi rek ngeen baal ma waaw bismillah waaw waaleykum salaam waa ji nga xam ne dafa faatu bàyyi bor am ku taxaw ci kanamu mbooloo mi ne maa gàddu ay borom kaka defoon ci kanamu yonent bi da bi xataada yonent bi dafa geesu na ko ah waa ji da ciy mucc de mu ne ko waaw yu mu yàlla yónni fekk yonent bi alayhi salaam ngir bañ nit ñi jàpp ni sénégalais yi jàppe bor xam nga sénégalais ñoom bor ak may la ñeemele di ñu ngi noonu moom bu ko defee buñ ma san indi nit danaan ndax bàyyi nay bor ñu ne waaw mu ne ndax bàyyi na lu mu ko fay ñu ne waaw mu jullee ko suñ ko indilee nit mu ne ndax bàyyi na bor ñu ne waaw mu ne ndax bàyyi ñu luñ ko fay mu ne déedéet mu ne kon jullee leen ko yéen bi loolu amee abi xataada ñëw fekk waa ji ñu ne bàyyi woon na ñaari dinaar mu ne ko yi mu yàlla yi ne gàddu na ñaari dinaar yi kaay jullee ko mu ne ko ah moom da ciy mucc de yaa ko gàddu mu ne ko waaw yeneen bi jullee ko loolu képp ku am responsable di taxaw ci kanam mbooloo mi ne man kat ci li mu bàyyi woon ci ay bor maa ko gàddu xamal ne moom nii bi moom pare na ci yow yaa gàddu responsabilité boobee loolee da nga koy gis ci l'islam xataa ñuy dund sax Cheikh Salih mi bu la yoraloon dix mille francs nga ñëw di ko fay ma ne la xee bàyyi ko bu subaa ñëwal ma jox la dix mille loolee dañuy moom la ñuy tuddee alxawaala mooy wëlbatiki nit ki ci leneen ala kulli xaal daal képp koy def loolu bu la ko kersa tax a def bu dee mënuloo ko boo ko xesee ba gàdd it noo mën a def ba fay ko fay ko te xam ne bor bi yow lañ koy topp mi ngi noonu même yow bu doon da ngaa dee sax yow bala ñu laa miraas daañ jël bo- bor boobee jox ko boroom mi ngi noonu wallahu suba ah naam naam naam waaw déedéet nee na dafay moom dafa toog ci jàkka ji di jàng war war wa waaw di doon jàng bi muy sujjoon nag bi mu pat déedéet déedéet waa ji gis ko ne ko nag waroo sujjoon heure bii daal waaw loolu la waaw kon mbokk alhamdulilah ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla defal tawfiq yàlla may ñu afiya fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain